ci ndortalu campagne bi mbootaay gi nga xamante ni ñëw wekku ci ginnaaw ki nga xamante ni mooy Ndiokho Baye Diouf di mbootaayu jigéen ñi ñoom daal nañ rek booloo seeni doole ngir fas yéene rek démarrer seen liggéey ba tax na ki nga xamante ni mooy Ndiokho Baye Diouf sa daal leen ñaax ci porte à porte yi ak doxu nemmeeku bi nga xam ne war nañ ko amal ci koñ bi ngir rek kenn ku nekk mën a nàmm san na ngànnaay ngir waajal vote bi lee kër yi sax dañu jënd ay groupe pour courant tailleur yi daaw ñu ñëw insécurité bi il faut que nit ñi sentir né président Macky amna am na lu mu yokk ci biir Sénégal. jotay bi nak nga xam ci lañu ñoo xam Baye Diouf sax daal di jaglél li nga xamante ñoy jigéen ñi lu tollok juroom benn fukki junne suñu copar taxna rek jigéen ñi gëna dogu waye tamit fas yéene booloo ñoom ñëpp ngir rek dem ci xeexi élection yi waye tamit waa alternance générationnelle ci kaddu ki nga xamante moy Moussa Diop daal di nañ dogu ñoom ngir gungé ki nga xamante moy ñoo xam Baye Diouf ci liggéey bi loolu la waral Awar ndjay mi nga xamante moy yore kaddu gi tay aujourd'hui je pense que l'alternative générationnelle dirigée par le président Maître Moussa Diop directeur général de Dakar Demdik, suit depuis très longtemps les mouvements qui se passent dans la commune de Mbao aujourd'hui tout le monde se rend compte que à Mbao malgré beaucoup de gens qui prétendent être des leaders à la paire, c'est un grand rassembleur dans la commune de Mbao Raison de plus pour qu'aujourd'hui l'alternative générationnelle s'engage aux côtés de Moussé Nyoko Baïdouf pour qu'enfin la coalition Benno Bokoyakar remporte les élections au soir du 31 juillet. Nous sommes mel les fu il faut que nous soyons nous sommes kilifa les tedd gi sommes tous les waral nous sommes tous leen ci Nous sommes tous les ngeen Nous ku tous a ku Nous sommes tous les koo Nous sommes tous les nax koo xamante wax yow la man imam la xam ngeen amul benn daraja bu nit am ci kaw suuf bu ëpp bu imam ndax ñu ñoo fi représenté yàlla te bu du woon dëgg gi mu am kon bàyyi naa ko bu yàgg. mu mel ni kon ñoo xam Baye ak ak ñoñam fas yéene rek jëfandikoo li nga xamante ne mooy dogal bi nga xamante ne njiitu réew mi jël na ko ci élection yi lée maanaam ñëpp daal bokk liggéey bi waaye te ñu fexe ba xam kenn ku ci nekk li nga am ci sa gox ci wàllu ay électeurs ngir ay naxe ban cee am.